booba yéesu jóge na dëkku nasaret ci diwaanu galile ñëw yax sóob ko ci dexu yurdaan bi muy génn ndox mi mu daldi gis asamaan xar te xelum yàlla di wàcc ci melow pitax ñëw ci moom te baat bu jóge asamaan jib ne yaa di sama doom ji ma bëgg ci yow laa ame bànneex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 te ànd ak day sant rab yi sax ñi di ko déggal noonu turam daldi siiw ci diwaanu galile gépp bi nga xamee ne génn nañu ci jàngu bi ñu ànd ak saak ak yowaana dem ci kër simon ak andre fekk gorob simon bu jigéen tëdd wopp ak yaram wu tàng ñu daldi ko yëgal yéesu